allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salati hayya ala al falah قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 laa tasmau fiha laaxiya fiha aynun jaariya fiha surrun marfuatun wa akwaabun mawduuca wa namaariqu masfuufatun wa saraabiyu mabsuusa allahu akbar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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamualeykum. asalaamualeykum.